dellu si un peu waaw d'abord euh, alhamdulilah dañuy sant yàlla bu baax d'abord donc bi ñu duggee si compétition bi si bismillahi rahmaani rahim génne si alhamdulilahi rabil alamin ñëw tey ñu ñuy sargal donc save euh, veut dire que ne donc euh, li ñu doon xaar si ñun donc def nañ ko bien vrai que bëggoon nañ lu raw lii parce que ñaanoon nañ yàlla bu ñuy ñibbisee fii indaale fi médaille wala trophée donc euh, yàlla dogalu ko donc ñu si sant yàlla mais aussi ñoo xam ne ne bi ñuy jóge fii dafa amoon objectif bu ñu fixé woon mooy atteindre les demi-finales pour une première en Afrique donc euh, yàlla def na mission boobu accomplir nañ ko donc euh, leneen li si des mooy continuer liggéey rek parce que compétition mi ngi ñëw suñu kanam waaw déjà am na coupe intercontinentale bu ñuy war a préparer donc ça débute le 2 novembre donc les huit meilleurs pays du monde ñooy dajawaat foofu donc beneen compétition la encore boo xamante ne nii bu metti lay doon aussi mais comme li ñuy wax rek nous sommes prêts instant bii nii donc dañuy jublu jiwaat ci liggéey bi donc à partir de mercredi les entraînements vont commencer pour préparer encore une fois dem représenter Afrique dignement particulièrement le Sénégal incha allahu rabi. yaa ngi bi. Mhm. est-ce que mën waaw regret yi ñu si am mooy comme li ma wax sànq rek bu ba regretter regret yi ñu si am mooy déjà. ñaanoon nañ yàlla bu ñu ñëw indi médaille donc euh, demi-finale bi ñëpp gis nañ ni mu demee donc euh, mën nañ ne colonne vertébrale équipe bi joué muy man Mamadou Sylla Pape Mamour Diagne donc loolu dafa yaakaar naa ne def na benn impact aussi si demi-finale bi donc arbitrage bi bëgguñu di si ñëwaat di si ñëwaat parce que dañuy bañ ne dañ leen gagné rek ñu koy jiñ arbitre mais sénégalais yëpp ñiy seetaan coupe du monde bi xam nañ arbitrage bi nu mu demee woon def nañ le tout pour éliminer ñu déjà donc amatuñ ci solution ñu ne xaaral ñu éliminer colonne vertébrale u équipe bi donc joxe ay carton yi carton jaune yu imaginaire yoo dul comprendre xam nga te loolu aussi doo ci mën dara mais loolu yëpp dañ ciy jàngat rek ne pour la prochaine fois bu ñu nekk tey ci sous le coup d'une suspension aussi ñu def le tout bien vrai que pour mën a moytu carton yi incha allahu rabbi ay regrets nag euh, am nañ ko franchement bien vrai que atteindre nañ suñu objectif mais aussi y a des regrets que y avait la euh, pour la finale. Mmh. waaw équipe nationale A comme li ñuy wax rek donc dañuy remercier waat dañ leen di remercier waat remercier Aliou Cissé donc ak seen modestie parce que ñoom ñoom ak beach équipe nationale A ak beach affinité bi ñu am donc affinité bu grave la donc à tout moment bi ñu nekkee Russie dañu doon soutenir di ñu accompagner donc aussi comme li may wax c'est à notre tour aussi ñu ñaan yàlla ñëpp jàppale leen ñëpp solidaire ñëpp nekk seen ginnaaw comme li maître Augustin Senghor wax rek. muy euh, slogan bi mankoo wuti ndam li donc na ñëpp nekk ci ginnaaw lion yi incha allah euh, pour que mois de janvier bi incha allah yàlla def ñu remporter pour la première fois le trophée continental bi ñuy xaar depuis pendant 60 ans. dernière question a dugg euh, ci encadrement technique. waaw do information boobu yow yaa ma ko jox ni mais comme li ñuy wax rek aussi dañuy préparer la relève parce que aussi duñ fi nekk éternellement donc y a la relève donc y a les jeunes qui vont venir. donc euh, ñu ngi si commencé di si liggéey donc eh, incha allah le moment venu comme ni ñu koy waxee rek dinañ euh, dinañ ci ñëwaat après pour wax suñu avenir euh, avec l' équipe nationale allah allahu rabbi merci beaucoup merci beaucoup.